Thank you.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 كفاك هكذا بي من كان من ملكي تكرن كرن كرن كرن كفي كبدي تحكم مسك من كذا لك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أصحاب الكرام نحييكم جميعا بأسمائكم وأوصافكم تحية مباركة طيبة ميمونة الا وهي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبكي سنغال مبكي جاسبورا واي مبكي كيب كو خامتيني رك ياغي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد ورسوله ني نغي نوي بواخ دي الزياره دي نيانو جام دي لا تاتغال دي لا واخ دلال اك جام تي سين بي اك سين واخ تاني ام سورو تي والو baatin ci am mën a xam euh, ban position la ay biddiwam taxawee la ay mbiram taxawee euh, mbaa koo xam ne dafay nekk si ay jafe-jafe ci wàllu néeg sëyam euh, wala koo xam ne ay mbiram dafa dëgër ko bépp koo xam ne sax sëyam dafa am ay tolof tolof yoo xam ne day jànkuwante ak moom ci loolu wala koo xam ne lépp lu mu dugg rek dafay am gàllankoor wala ñi nga xam ne yàlla subhanahu wa ay feebar ci wàllu ñàkk mën a am doom nga xam ne léeg-léeg ay mbir yu doy waa dina ko def incha allah dinaa ñëw ngeen ci waxtaan yooyu ci leeral yooyu incha allah fas yéeni waxtaan ak yéen incha allah la jëm seen Mouhamed maa ngi lay jaar ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax di la dalal tey si si Banlieue TV si seen émission gëm-gëm ñu fas yéene si waxtaan waxtaan bu am solo boo xamante ne yaakaar naa xam jaamu yàlla yëpp dinañ si jëriñoo tey nag ñu bëggoon laaj jafe-jafe yi nga xamante ne nit dafay am ñu koy wax dafa tëju. Mm-hmm. wala nit lu mu yaakaar dafay tas. Mm-hmm. loolu sëñ bi ban xalaat nga ci waaw alhamdulilahi rabbil alamin beneen yoon ñu waat génn rek euh, question bi nga xam ne Mouhamed pour laajte na ko doomu aadama léeg-léeg mbiram dina dëgg li koy waral nag bari na waaye dinaa tudd yi nga xam ni euh, moo ci solo. doomu aadama léeg-léeg mbiram tëju ba jaaxal ñëpp bu bunt bu fëgg rek mu tëdd tëju am na ci ñoo xam ne seen mbir toll na ci wàllu tëju foo xam ne bool nañ leen woon dig sax pour pour indi ndox lay jafe mën nañ dem ba tim ndox mi waaye war ba tànk bay ñëpp si am gàllankoor ci yoon loolu wërsëg bu tëju da koy war léeg-léeg nit wërsëgam tëju tëju ba lépp lu dugg rek da tey sol dinaa wax yi nga xam ne mooy gàllankoor nit ki bu wërsëgam tëju wërsëgu tëju nag mag ñi danañ ci mus yàlla subhanahu wa taala ndax faqir baaxul koo xam ne loo làmb euh, mu tëju insha allah musal lu koy waral bokk na ci mooy cheytaani rab dina yàqal doomu aadama rab dina fexe ba gàllankoor doomu aadama lépp lu mu dugg rek mu daal di neen mu daal di sooy day am léeg-léeg rab euh, mën na laa sonal ci côté boobu exemple tey nga am xale boo xam ne yaa ngi bëggante ak moom yaa ngi bëggante ak moom nga bëgg nga ko moom bëgg na ngeen dem ba jàpp jour ba nga xam ne bis tel ngeen war a takk rab bi ñëw fexe ba dugal sa xel mi génne sa xel mi ndaw soosu nga far bàyyi ndaw soosu loolu wërsëgu tëju da koy def waaye nag ku rab jàpp da koy def Euh, ba léegi wërsëgu tëju bi koy def bokk na ci mooy euh, maanaam koo xam ne dafay faral di biddant yu bari biddant yu bari mag ñi daan nañu wax baaxul kazaalika ba léegi njaalo bu bari day fànq day day sul biddiw ko képp koo gis rek muy njaalo la plupart wërsëgam ni mu war a ñëwee dëgg dëgg dëgg dëgg euh, du ñëw mën na départ nag am départ waaye nag mujj bu rafet nekk la ñuy xool ci moom tabaarakallaahu yooyu ay simila yoo xamante ni dafay tëj mm, buntu wërsëg lig lig nga am lo xamanteni bi nga wara jot ci xaliss sa buñ la ko diggé pour jox la ko rek mu soy wërsëg bu tej da koy def yaakar bi tass wërsëg bu tëj dana ko def rab dina ko def dama aadama comme ni ko parce que rap lig lig mu yakal nit lo xamanteni sax nit ki day tok ba ci yaay di poser question bu xom nan man eh, lima dal lan la day am lool nak bu amé nak ba nga setlu ba nga gis sa walu mbir ñu xolal la yow carrément li nekk ci yow ab gàllankoor la ñu wax la li nga xamante ne mooy sarax yi da ko war a génnee moo tax toujours may waral may faral yoo wax ne képp koo xamante ni rek seetal nañ ko ba noppi dañ ko war a wax ay saraxam dañ ko war a wax ay saraxam képp koo gis mu feebar dem hôpital am na garab kon nit ki ñëwee ci yow ba seetlu ba baax ba pare am na garab yoo xamante ni ak saafara yoo xamante ni ay euh, ubbeeku yoo xamante ni moo baax ci moom wala ay mustuwaay yoo xamante ni moo baax ci moom wala ay yenn xeetu sarax yoo xam ne moo baax ci moom ak lu maa doon bu nekk rek bi ngay taxawee parce que léeg-léeg nit ki mbiram dina baax dina dox waaye nag mu seetlu ay mbiram terewut ba léegi na génne sarax parce que léeg-léeg nga feebar dem hôpital médecin sa yaram dara dara jot nga dem ci médecin yi médecin yi xool la ba noppi xool na yow daraa la jotul waaye garab sàngam ak sàngam nga dee ko jël baax na ci yow seet nag noonu la mel jëmmi doomu aadama ñu baree bari xamuñ ko léegi nag jamono ji mooy yàqu ba nga xam ne ku jub di seet di wax loo xamante ni tegoo ko fenn ba nit yi ñu baree baree bari amatuñu confiance sax ba nit ñu baree bari amatuñu benn confiance ci sëriñ ci nga xamante ni ñoom lañuy njëkkaan rek ci wàllu liggéey ndax lu ko waral mooy saay-saay si yi nga xam ne bokk ci mbir mi jànguñu xamuñ daray baati te bind sax mënuñ ko ñoo dugg ci mbir mi ba def ko ab commerce ak métier affaire bi du métier affaire bi da koy def taxabudan rek nga koy def da nga koy def ngir xettali doomu aadama yi jàppale doomu aadama yi lépp loo xamante ni rek suñu borom subhaanahu wa taala may na la ci xam-xam nga fexe ku ñëw laaj la ta nga mën ko nga jàppale ko ci moom nag yansurkumullaahu falaa gaaliba lakum moom ngay jàppale day fexe jàppale boppam ca la war sa mbir mi moom la mag ñi doon tuddee weexal moo tax léeg-léeg nga gis koo xam ne dañ koy defal junni at du gis dara ndax lu ko waral mooy la ci war deful ko parce que jamono moo yàqu jàpp nga ne kala naxoon rek boo dee keneen noonu lay def moo tax yooyu jar na bàyyi xel bu baax a baax ay gàllankoor la yoo xamante ni dafay dox si diggante sëriñ si ak ñi ñaanlu su ko defee ki nga xamante ni nag moom mbiram dafa tëju ci bépp côté na ci jug euh, xam ne moom war naa jug ci ay mbiram euh, balaa euh, yëfee gën a ëpp doole ndax wa maa min daabbatin fil ardi illa ala llaahi rizquhaa wa yaalamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullum fi kitaabin mubiin nit ki tànk mooy dund rek wërsëgam dina ko yëpp xam ko waaye nag léeg-léeg nga toog foo xam ne sentir sa bopp na yow sa wërsëg dafa tëju bant yàlla ne moo wax ne mu wërsëgi doomu aadama yi tànk mooy dund rek maa ngi ko jox waaye nag nit ki léeg-léeg mu toll foo xamante ni wërsëgam dafay tëju day am incha allah musal nga rab dina ko def njaalo fo bu bari ci wàllu jigéen dina ko def su ko defee yooyu ay xeetu mbir la yoo xamante ni eh, nit ñoo nañ cee bàyyi xel alhamdulilah nag ñun am nañu solution yoo xam ne incha allahu taala ñun suñu liggéey suñu li muy aju mooy eh, boo ñëwee tag wax ni li nga xamante ne mooy soxla bi eh, balaa ñoo dugg ci soxla bi di ci xuus dañuy di sante yow ci wàllu seet parce que médecin bi kat balaa ma laa mën a faj dëgg dëgg dëgg dëgg faaw day xam ci kii ni moom ban feebar moo ko dal ak lan moo ne ci yaram bi parce que boo ñëwee ne damaa tëju rek ñun duñ doole loolu parce que ñun balaa ñoo mën a jëfante yow dëgg-dëgg lay wax ne dañuy seet cest li nga xamante ni moom moo aju sa wàllu mbir ak li nga xamante ni moom moo wat ci yow ci lépp ci wàllu seet wàllu sarax ñu wax la ko nëtal la ko ne la allah allahu taala sa mbir daal lii la ak lii ak lii ak lii lii ak lii ak lii incha allahu taala bu neexee yàlla moo koy saafara moo koy saafara sëriñ si ñaan faaw ñu bàyyee xel ne ñoom moomuñ dogal bi ñoom leen la leen yàlla may mooy xam-xam te xam-xam bari bari bari tuuti la leen suñu borom subhanahu wa taala mosal maa utiitum min al ilmi illa xalila yàlla xam-xam bi lu muy bari bari bari bari tuuti la yàlla ndax wa wa yàlla xam-xamam beeg dafa kawe bépp mbindeef yàlla rek tabaarakallah moo tax premièrement nit ki nga xamante ni yaa ngi koy ñaanal boo taxawee place yàlla yi da ngay taxawee ne ab jaam nga rek boo xamee da ngay di ko ñaanal li nga xamante ne mooy soxla su ko defee ñu bàyyi ci xel bu baax mm-hmm. incha allahu taala ki nga xamante ne dafa ñëw am jafe-jafe Mouhamed euh, wàllu ay mbiram xaw a dëgër incha allah bu jokk nañu 77 962 57 18 bu neex yàlla dañ ko wax li nga xamante ne mooy saraxam mm-hmm. wax ko li nga xamante ne yéen xeetu musuwaay ak yéen xeetu ubbeeku ma baax ci moom ndax inna fataxnaa laka fatxan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر نيت كو نيك وارو ام كونسانترو سي بوبام بور اوبي يارمام بور فخي ديك سي بوبام تبارك الله لول موي ليغا خامتيني موم موم لا نين دون ليرال لين رك سي ليغا خامني ني ام جافا جافا نغور سي سين نيم سي وا محمد نيغا خامني ني يالو ني نكو ني ام جافا جافا نغور سين والو نيم سي ني ان شاء الله بو نيوي بو نيوي سيدنا علي dañ koy safar ba mu wér day wër wala day da fay wër day am kàttan moment bo boobu dafay fekkee dafa ñëw tey war a jot soxna si mhm. te amul daray kàttan bu ñëwee tey ci guddu wala day sëy mhm. mais na duñ ko garanti na ko ci guddu go lay wér mhm. maanaam dina mëna a yegg ak ndaw si si biir guddi googu noonu waaye nag pour mu wér nag dafa am traitement ay po yo xamné sunguf la mom lañ koy jox mu koy jël benn par benn muhammad am na ci ñoo xam ne seen ngóoro dafa xaw a seen néew kàttan dafa xaw a diis maanaam dafa naqare dafa naqare bi am na ci ñoo xam ne ni buñ dalee doo po sunguf rek mën nañu saabara am na ci ñoo xam ne faaw ñu jël ba 4 ba 5 maximum moom 5 la yaa ngi dégg léegi nag koo xam ne dafa ñëw carrément ñu dañ koy laaj ndax daa bëgg faju moo tax man ku ma woo tel rek dama naan la cheikh bi yow faaw nga woo ma téléphone exemple wala nga audio ma bàyyi na message wax ma li nga xamante ni moo nekk ci yow parce que boo ñëwee rek ne ma garab ngóoróor laa soxla man du ma comprendre parce que xaw ma man boo ci soxla kon su ko defee dama lay laaj yow euh, ban dégare nga taxawee yow boo taxawee ndax yow euh, yaa ngi yëg sa bopp mais da nga amul force wala ndax yow da ngaa mënatul dara di question la boo xamante ni ñu war a ci bàyyi xel bu fekkee ne ki nga xamante dafa toog bu mënatul dara dara dara kooku bu ñëwee dafay jël ñaari yëpp bi nga xamante ni moom mooy lem ak bi nga xamante ni mooy sunguf si bu ñëwee jël sunguf yi def traitement saa bu xëyee jël benn kudd comme ni ñu koy faral di ko di ko expliquer nit ñi macha allah ba keroog muy muy affaire bi di wér. yaa ngi dégg léegi nag bu fekkee ne dafa soxla koo xam ne maanaam dafa néew kàttan rek mais euh, mu ngi yëg bànneex mais kàttan moo ñëw rek day yegg. Hmm. kooku dañ koy jox li nga xamante ne moom mooy euh, beneen produit book bokkul ak sunguf si. yaa ngi dégg su ko defee saa boo xamee ne rek war naa jotee ak soxna si léegil jël benn kudd bu ndaw rek mos si yaa ngi dégg naan ko avant quarante avant cinquante minutes. boobu jóni jóni la nga koy naan rek toog ba si yàgg rek gis affaire yi commencé da nga kon moo tax yëf dafa nekk loo xamante ni euh, kenn war koo làmbatu li ngay tax nit ki li nga dugal si biir bi war na koo xam bu baax a baax a baax ndax biir moo nekk loo xam ne dafa xas dugg rek dugg na soo ko defee yéen na bàyyi xel baax képp yaa nattal nga am néew kàttan mbaa nga am jafe-jafe ci sa wàllu néegu sëy bis boo jokkoo ko Seydina Ali sa xol sedd alhamdulilah nag Mouhamed man commencé jaay ba léegi commencé liggéey ba léegi nit masu mësul ma wo ma jaar ko garab lu mu kalaame preuve yi beul sama téléphone waye man duma tek ay audio duma tek ay audio parce que man nga man nga tek ay audio mu xawal a lenen waye ala kulli hal li wax rek man shaa fa yu'min wa man shaa fa yakfur kum neex affaire doy inshallah allah mi ngi noonu doy fay la alhamdu waaye ala kulli hal garab bi ma ko wax fi ci BTV ne amul kenn kuñ koy jox mu wër ko waa duñu xas. original garab ba naturel cent pour cent la nag sans effet secondaire. ñi am problème mu hémorroïde. hémorroïde incha allah euh, am na yenn xeetu garab yoo xam ne incha allah ñu ngi koy liggéey mais euh, jubluwuñ ci carrément. Hmm. jamono ji ñu ngi ci traitement li nga xamante ni moom mooy wàllu ngóor Mouhamed. Hmm. ndax waxtaan wax dëgg ci la bokk. Hmm. lépp loo xamante ni yaa ngi koy def rek. ma da ngay fexe loo xamante ni nga maîtriser ko. nga xam ne nit bu ñëwee du am benn làqu am benn nëbbu. boo nee damay faj sida damay faj hémorroïde dama noo ko yaa ngi lekk riba sama'una lil kadhibi akaaluna li suhti yàlla subhaanahu wa taala bëggul ko ngay lekk nit ki xaalis boo xamante ni lewut la moo tax ñun lu ñu man wax nañ leen ko mu ngi noonu wàllu ngóoro yi nga xamante ni eh, nit ñi am jafe-jafe seen wàllu néegu sëy jeex na fi jafe yi xuloo ci biir néegu sëy ndax néew kattan jeex na fi Seydina Ali ñëw na andi li nga xamante ni moom mi solution yi Mouhamed macha allah. bu nekkee wàllu noonu. waaw bu dee wàllu noog xam nga nopp faaw ñu def émission boo xam ne spécial Mouhamed. Mhm. Euh, dañuy jàngale wàllu nopp maanaam nopp yi ci nekk. Mhm. parce que ki ngay nopp kooku faaw nga xam biddiwam ban heure lay feeñ. Mhm. parce que doomu aadama bu yàlla bind bu nekk rek. am na ci biddiw bu mu bokk. am na ci buruj bu mu am na ci tabia bu mu bokk. tabia yi moom ñëpp xam nañ ko ñuy ñu jàngu sax xam ne tabia yi mooy ndox suuf safara ngelaw. mais nag ñu ko mën a seet man koo leeral dëgg dëgg dëgg gën a la sew sew yi. mooy problème mu xadis yaa ngi dégg li tabia yi boo xoolee ñeent la boo xoolee kawka bi muy biddiw yi kawaakib bi da lay jox euh, sept da lay jox boo xoolee li nga xamante ni mooy buruj yi dalay jox euh, douze wa samaa'i daatil buruj buruj mooy euh, ay xeetu mbir la yoo xam ne dafa nekk ci asmaan yaa ngi dégg léegi nag boo xoolee yëpp douze buruj la léegi su ko defee nit ki nag bala nga koo noob bala nga koo noobal ki mu bëgg dafay am ay charte Muhammad charte bi mooy ndax ki ngay nopp dama pare pour takk première question yi moom mhm. ndax ku dee ak sa bàmmeel leer na wala ndax sa jabar ndax ndax sa jabar la bu fekkee ne man sa jabar la sax man lay gën a kontaan mhm. xam ne bëri na ñuy nopp junni at du jàpp mhm. ndax kañ koy defal foo rek mën a tax alquran lépp loo xamante ni da nga koy liggéey ci alquran karim bëgg mu barkeel faaw mu ànd sell bu mag sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk ak dëggu da ciy bokk waxtaan wax dëgg ci la bopp du dëgg su ko defee yéen a bàyyi xel faaw mu ànd ak sell gu ma sëkk nit ki da nga ko war a laaj ndax kooku daa pare pour takk soxna bu ñu la waaw nga xool ndax ñoom ñaar seen biddi bu ànd àndul nga nopp doomu jàmbur mu sëy koo xamante ni biddiwu àndul sëy ba ëllëg mu am problème bàyyil xel ne bàkkaar ba yowmal xiyam da koy layoo borom bi ñun ñi bi ñu xel bu baax de nopp dafa garaaw ñu naan koy fooyee mi lu garaaw a garaaw a bu dee nopp zulmaani yi moom mën nga ko def ni ñaari fan mu jàpp mu jàpp su ko defee ñeenti fan rek nga gis affaire yàqu ma war a coow yu bari hmm. waaye bu dee alquraanu karim nag boo xasee jàpp say fin alquraanu karim lu mel ni kurus nga noppi nit ba jàpp ko say fin kon amatul loo xamante ni mën na ko dindi kon su ko defee boo gisee may leeral li pour ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal man képp koo xamante ne Mouhamed mas naa liggéeyal ci macha allah yàlla yàlla def na si réew yàlla def na si résultat kon li ci am solo mooy nit ki ngay noobal fexeel ba mu am résultat waaye fexel avant nga koy liggéeyal laaj ko charte yi xamante ni moom la lay sant conditions yi fekkee ne lépp dëppoo na nga doog ko liggéey nga doog ko liggéey waaye nag képp koo xamante ni ci tànt ne ñun de ci wàllu nopp amul benn muskila incha allahu taala sa xel dal bu neexee yàlla danañ ko liggéeyal incha allah ba lépp lu ci war rek danañ ko def bu neexee yàlla incha allahu ci wàllu course ci walu lepp lo xamne ci walu ñaan ala kulli halin nok da bari ay muhammad Mouhamed am ci ko xamne ne balaa nga ko jàpp dañu daj lu métti métti am na ñoo xam seen mbir manam seen seen seen euh seen biddu seen rohan mo naqaree téye yéen li ma am na ci ño xamne pour nga japp leen da nga course course ba bëgg a am na ci ño xamante rek mën ngaa def tey tey balaa ngon gis ma sandi pa moo tax nit suma ma wooyee ne ma euh, nob bi ki la jàpp ne ko non parce que nit ki mel ne war xamaguma la taxawee. yaa ngi dégg léegi-léegi ma nobal nit la plupart ba 3 jours ba 4 jours ba 5 jours maximum moom 7 jours moom du ko weesu alhamdulilah yaa ngi dégg léegi-léegi ma nobal nit nag ma def li may def ci guddi gi balaa suba ndaw si daal di ñëw ci moom. nob gu jàpp dëgg-dëgg dañ koy xamee mooy ndaw si mooy def ay gestes pour nga ñëwaat yaa ngi dégg ndaw si dina la woo téléphone mbaa mu def gestes yoo xamante ni mën nga ñëwaat ndox mën na jàpp jigéen te jigéen du ñëwaat de. yaa ngi dégg te xam lu ko waral yaa koy mottali parce que jigéen ñi yàlla da koo bindaale kersa. yaa ngi dégg yàlla da koo bindaale kersa moo tax am na loo xamante ni yaa koy mottali yaay xool ne xam ne kii kat alhamdulilah mbir mi na meloon bu njëkk ak léegi changé su ko defee noot na incha allah képp koo xamante ne jot ko ngaa ñëw rek ci 77 962 57 18 bu neex yàlla incha allahu taala ak sa xol sedd bu neex maanaam gàllankoor nit gis nga ubbeeku lu ama am am la lu ama am la gis nga yàlla subhaanahu wa taala dafa wàccee benn saar bu ñuy wax suratul nasr ak suratul fatx yi bu jàngal kon xam ne wax leer na suratul nasr mu idaa jaa nasrullahi wal fatxu wa raayta annaas yadxuluuna fi diinillahi afwaaja fa sabbix bixamdi rabbika wastaxfirhu innahu kaana tawaaba dinaa si joxe tey secret boo xamante ni ci wàllu biir la mu wax na secret boo xam ne dama koy may rek tax incha allah képp koo xam ne yàlla subhanahu wa taala daf daa nattoo sa mbir dëgër xaw a saar boobu boo ko bindee lim bi mën a jox incha allahu taala day sa mbir day dox bu baax a baax a baax da ngay bind isa jaa isa jaa ngay bind isa jaa nasrullahi wal fathu wa raayta yadxuluuna fi diinillahi afwaaja ba si afwaaja ah, isaa jaa ngay bind ba si afwaaja nga bamtu aswa afwaaja quatre-vingt-douze quatre-vingt-douze xam nga lu mu jàpp sa tur bi Mouhamed quatre-vingt-douze mille quarante la mille ñaari mille di quarante muy quatre-vingt douze te quatre-vingt-douze Mouhamed mooy jàpp afwaaja yaa ngi léegi boo bindee isaa jaa nasrullahi ba si afwaajan nga bamtu ko afwaajan nga bamtu aaya boobu noonu 92 nga yeggali aaya bi fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba 92 nga jël saabu sos xooj ko boole ko suufu marché parfum ñëpp incha allahu taala dinañ la yéem ci sa wàllu koom-koom dinañ la yéem ci sa wàllu béeku da koy sangoo sept jours nga koy sangoo képp ko rafetlu borom subhanahu wa taala defal la xewal ñi nga xamante ne ba léegi dañu bëgg yenn xeetu ubbeeku yi nga xam ne moo gën a yaatu nga xam ne eh, day gën a jotale ndax avec dafa xaw a su ko defee rek mën nañoo woote ba léegi 77 962 57 18 amul benn muskila incha allahu taala képp koo xamante rek da ngaa sant sa bopp ci ubbeeku te amoo la bindal te yoroo loo xamante ne mën ngaa weexal pour ñu bindal ah, mën ngaa jël loolu ma joxe sànq incha allah nga fexe ñu bindal la ko te fexeel na ka la koy bindal nga am loo teg ci loxoom xolum sedd tabaraka allah bu ko defee rek sa xol daal di sedd moom tamit nit ki ngay bindal mbaa ki lay jëfandikoo ci wa ki lay jëfandikoo ci wàllu ñaan kooku dangaa war a fexe ba xolam sedd su ko defee xolam bu seddee rek mu ne allahumma yàlla lu koy nangu tabaraka allah ndax xolam bi nga seddal te bu dara rek borom xam-xam la am nañu yàlla dafa tawfiq incha allah Mouhamed ban question moo ci topp waaw question bi ci topp mooy dernière question bi nga xamante ne par exemple si wàllum bayre waaw léeg-léeg ñu dugg ci mbir. di ci hmm. këtt këtt ba sonn. Hmm. soxla nit ñi xam ko ci wala soxla lu mu nekk pour mu dox. Hmm. wala mu bëgg àdduna bi ñëpp turam jóg bay kaw. Ahmed <laughs> ko amul kaaraange <laughs> ku amul kaaraange ku amul musluwaay waroo ko laal ndax ñëpp di ngaw ngawee. yow sa ginnaaw dëgërut xam nga bàyyi baa xam nga ne guy garab sax garab làmmañ digut ko asmalaa doomu aadama bàyyi la nit ki balaa ma ko laal dafa war a am kaaraange gu wér këng këng këng këng këng këng doo ko jëfandikoo kaaraange nit bu ko amul warul laal bàyyi hmm. bu yow nit ñi bàyyi ko xel baax baax incha allah ñi nga xam ne dañoo bëgg nit ñi dégg leen am na bayra boo xam ne mu ko joxe bayra boo xam ne Muhammad ci waduud la nekk waduud xam nga ñaata la waduud vingt la waaw si la jël quatre euh, jël quatre ñaar waaw six su ko defee mu jox la vingt waduud muy firi sax maanaam duudu muy firi sax maanaam exemple boo dindee waaw ku njëkk bi jox duudu at duudu muy firi sax leer na wadduudu mooy ki nga xamante ne dañ koo sopp al wadduudu dégg foofu nag dina am secret boo xam ne dinaa ko ci maye mais am secret boo xam ne ko dindi gis nga boo amee yàpp yàpp Muhammad nga fexe ba am yàpp lu tollu ab dagit bu xaw a rëy ñu bind la quatre cent wadduudu quatre cent ñu bindal la ko ci fuy nga jël yàpp wi jël kayit bi jël kayit bi dugal ko ci biir yàpp bi takk yàpp bi ci may dégg jël kayit bi dugal ko ci biir yàpp bi takk yàpp bu yàpp bi dëgër nga jël yàpp bi weer ko foo xam ne muus du ko jege maanaam foo xamante ni day naaj leer na boo ko weeree ba fuy naaj ba ay sax commencé génn ci yàpp bi ay dégg ci am dégg Mouhamed ba ay sax commencé génn ci yàpp bi bu yàpp boobu commencé naa nekk xaw a nekk xaw a euh, saxe commencé nekk sunguf nga jël yàpp woowee euh, rocc kayit ga daal di jël li nga xamante ni mooy yàpp nga dëbb ko def ko sunguf yaa ngi dégg boo amee sunguf yàpp boo pare nga jëlaat li nga xam ne mooy baatu ba duud bi nga bind ko vingt quatre mille vingt quatre mille maa ngi joxee loo xam ne loolu machine a koy bind ah <laughs> vingt quatre mille yaa ñu yàqu léegi de temps amatul rek waaye bind nañ ko ba taay. vingt quatre mille ngay bind nga koy bindaat boo ko bindee vingt quatre mille nga jël li nga xam ne mooy yàpp sunguf boobu nga amoon ci yàpp wi xooj saafara bi ci njaq da ngay mhm. xooj saafara bi ci njaq daal di jël sunguf boobu sotti ko ci biir saafara si mhm. boole ko parfum misk da ngay ak ak point zahvaran zahvaran ak maaul wird <laughs> nga xooj ko Muhammad di ko sangoo ba mat dix-neuf jours bala ngaa dee nga dégg de kan laa yërëm kay mooy ki incha allahu taala te kenn kay yërëm mooy koo xamante ni amul kaaraange koo amul kaaraange bu ko laal dégg nga incha allah su ko defee ñu bàyyi ci xel loolu moo nekk li nga xamante ni mooy béréb boo xamante may naa ko voilà mm. ku la xale ni am na yeneen façon xeetu yoo xamante ni wàllu tekk la wàllu kaza bëri na ay façon incha allah ku ko soxla rek bu neexee yàlla nga boo wootee ci 77 962 57 18 incha allah taala dañ gën a jëflante yow ci wàllu lépp loo xamante ni soxla nga ko rek te ñu mën ko Mouhamed te ñu mën ko. ndax yàlla rek mooy alxaadir te ñu mën ko te ñu mën ko. ndax yàlla rek mu koy wax de. waaw te ñu mën ko waaw. waaw parce que am na loo xam ne nag bu ma yettaqillaa yaj'al lahu maxrajan yàlla nag am na ci loo xamante ni boo bëggee mu la si dimbale faaw ngay xaw a sagal bu baax a baax. waaye dafa am loo xamante ni yàlla moo mën lépp wallahu ala kulli shay'in qadir yàlla wal xaadirul muqtir bi moo attan moo mën mooy def du neex jaam bi nag ak xam-xam rek la yor Muhammad lan moo tax jamono gi xaw a métti léegi muy sëriñ si dañuy taxawee place yàlla ci wàllu ñaan dañuy dégg foo dégg ku ñaan naan lii day am force xamal ne la mu yor zulmaan yi rek baaxut musulmaan yi képp koo xamante ni yaa ngi koy liggéey mooy xam-xam bu ñuul bala ngaa dee di nga murtad doo dee ci lislaam te bala ngaa dee di nga ñàkk te bala ngaa dee alal amuñ amoon yëpp day saaw bëri na koo daan dégg ak am amam bu dem ba waaj nekk amatul dara mu ba waaj faat amatul dara ay ay gis na loo xamante ne loolu jëflante ci wàllu musulmaan yi ci wàllu xam-xam bu ñuul moo tax baaxul day wor dafa am benn paa benn xis bi benn góor gu ma jàngal baat moom ko nit xam ne góor gi dafa amoon xaalis lool nekk ci dëkk bi sik ajuma rek ay ginaari ginaar lañuy def te jox jaay gi nag mooy mooy xalifa bi ci biir kër gi mooy xalifa bi ci biir dëkk bi que mm-hmm. góor ab zulmaani la yoroon ab xam-xamu yu góor gi daal sik ajuma rek moom mooy invité gaa yëpp gaa yi lekk ginaar yi yëpp te xaalis bi finance loolu xaalis bi musulmaan yi la xaalis bu baaxul. Mm-hmm. yaa ngi dégg yi daal sek àjjuma rek góor gi dana ibbi di dem ba jimmi jamono góor gi faatu ak góor gi xaalis bi mu yoroon dem ba jimmi jamono góor gi faatu taawam war taaw bi na ko wutu taaw bi du ko daaje ñëw bam ñëwee ah te du bàyyi guddi am lu ko ñëwal na ko sa bàyyi li mu yoroon. nekkoon ci moom boo bëggee muy continuer ba tey dangay wëyal di def li nga xamante ni ñun moom lañ nekk doon donc donc liggéeyante ak moom ay ay ay ay junne ñoo ko ñëwoon ci guddi gi ah kon góor dafa am loo xamante ni danoon ko liggéey ak ak xaw ma ko woon mu ne waaw waaw mu ne loolu nag soo bëggee nag muy continuer ba léegi muy continuer eh, da ngay fexe kullarante ak ñun ci liggéey boobu boo ko nanguwul nag affaire dem mais kon gi daan liggéeyante gars yi jinne yi mooy jinne yi dañ koo satlaanoon mu jël kaamelu alxuraan karim suuf ko ci foo xamante ni foofee demee toilette maanaam ci biir douche bi sama li mu wax kaamel boo xamante ni da koy def gas ba mu ko tuur ko ci biir douche bi mm-hmm. da ci dem àll da ci def lépp su ko defee li koy def rek lépp day ñëw mm-hmm. loolu mooy xam-xam bu ñuul laa yastawi asxaabu niir wa asxaabu janna soo bëggee mucc àdduna ak àllaaxira da ngay moytu loolu yàkkamti jarul lenn yaa ngi léegi nag euh, waa ji jaaxle mooy taw bi jaaxle na parce que xam nga rek Sénégal luñ ñu xewal mooy sa bu jógee yaay toog sa la mu nekkoon rek mu ngay continuer yaa ngi dégg mm-hmm. la mu nekkoon ngay continuer léegi nag euh, paa bi euh, waa ji daal di jaaxle ci loolu ni paa bi kon lu doon def gaa yi ne ko waaw ñu leen man lii moom xalaatuma ko man moo ko def te xam na loo xamante ni man ma ko def te xam li problème bi dina mm-hmm. gi ne ko ginaar yi nga xamante ni góor gi mu ngeen ko togg sek àjjuma mm-hmm. ginaar yooyu lenn la mooy ay puub moo fa ne ay puub la woon soppali ko ay ginaar mm-hmm. maanaam ay puub ginaar yi ay puub lañ fa def maanaam si digg bool bi bu jàpp ne yow ginaar ngay lekk de mais ay puub ngay lekk ay ngi leen loolu mooy li nga xamante ni xam-xam musulmaan yi baaxut noonu lay def moo tax léeg-léeg nga gis koo xamante da ciy liggéey dem ba ci yàgg ay alalam lépp lakk lépp mu commencé taxawaalu loolu lay utiliser baaxut alquran bàyyiwul dara alquran lépp ci nekk wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu waskuru nicmatallahi aleykum id kuntum aadaan maa faratna fil kitaabi min shay'in lii tax xissa bi tax li tax ma nettali ko mooy jàngale pour jàngale li nga xamante ni mooy xam-xam musulmaan yi am nañ ko xam nañ ko jàng nañ ko waaye am na loo xamante ni suñu mam maam ñu ko woon def mag ñi tabarakallah xamuñ ko won moo tax tabaarakallaahu mu jël li nga xamanteni moy alquran karim nga xamanteni ni lépp a ngi ci lahaa maanin kamoo jël baxri fi madadi alquran lépp lu waay di soxla rek tabarakallah mu ci ma sha allah ñu ngi leen leral ci li nga xamanteni ni ci walu ubbeeku bi rek ak ci walu li nga xamanteni mom moy mo nekkon li nga xamanteni moy walu wàllu ak walu nguur yi ak walu Muhammad ak wàllu seet beeg yooyu ala kulli hal bisimilah question bi nga xamante ni moom mooy waaw mën nga mën nañu xam naa jaajëfal Mouhamed bu baax kii ni muy ànd ak ko ànd ak ñun pour wisaare xam-xam ndax seen bi ku xam xam ko ci dalal borom xam-xam ndax BTV Bale TV gi macha allah nit ñaa koy bàyyi xel su ko defee nit ñi gën koo bàyyi xel bu baax a baax Mouhamed du dalal kenn koo xamante ni waxul xam-xam. sen la boo xam ne ngeen gën koo bàyyi xel bu baax a baax seen la boo xamante ni boo bëggee xam-xam diina am na ci boo bëggee xam-xam ci wàllu mbir am na ci kon moom jomb na dala nit koo xamante ni macha allah day nax nit ñi mbaa day wax loo xamante ni tegul ci téere tegul ci alquran macha allah su ko defee yooyu ñu ba ñu bàyyi xel bu baax a baax ñaanal seen bi macha allah BTV incha allah mu nekk sen boo xam ne seen bi yëkkatiku la ba ñëpp xam ko incha allah képp ba yàlla yëkkati sen bi ba muhammad Missa li ñëwatul seen yàlla weesu ko ay njort macha allah ci seen mm. yàlla man na ko am na ko si barke war faxanaa lakka di karaka si barke war faxanaa wa makaana aliyan mm. seen mbokk seen xarit Seydina Abdou Cissé la mm. moom moo ñëw yéen si leeral yi nga xam ne macha allah doon nañ ko fi leeral ci wàllu ay yenn ci xam-xam nit ñi rek wàllu xam-xam ni doomu aadama am na yenn yoo xamante ne des na incha allah di ngeen ñu topp rek ndànk-ndànk incha allah dina gën a yaatu te ngeen ñu gën a xam bu baax a baax ci seen bi seen mbokk seen xarit Seydina Aliou Cissé la wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu